Euh, pur du parti de l'unité et du rassemblement tey moom la ñu sekkal waxtaan bu am solo bonsoir. Honorable, ça va ça, ça va, Vous allez bien Ça va, alhamdoulilah. Ça va Bien. bien. va. yaa mars journée de la femme communément aussi appelée journée internationale de la femme ah, mbokk yi tey dañoo mbégte bu baax a baax ñëw fii assemblée nationale a ah, si ki nga xamante ni moo di l'honorable député ah, Soxna Ba nekk député bokk ci pur parti de l'unité et du rassemblement honorable am nañu mbégte a fekk si la fii sa bureau nga sañ sa way bëgg a dee accueillir ñu aussi vraiment. merci beaucoup ci sa disponibilité. merci beaucoup Aïcha maa ngi lay nuyu di nuyu sa téléspectateur yëpp nuyu 7TV di la wax ne contente lañ am pour répondre sa invitation par rapport ak émission bi nga xamante ne si moom la ñuy def waxtaan ak askan wi par rapport ak 8 mars bi nga xamante ne si moom lañ nekk. nga nekk jigéen. Mhm. nekk député loolu lan la def. waa nekk jigéen nekk député sentiment de fierté lay am parce que en moi tant d'autres femmes yoo xamante ne si ay femmes la ñuy engagé wu en politique nekk ci di bay seen waar di def li nga xamante ne si moom mooy seen responsabilité te mooy responsabilité de représentation mhm. du peuple moo tax sentiment de fierté la ñuy am ci représenter ñi nga xamante ne si ñoom ñooy suñuy concitoyens jéem a apporter des solutions à leur problème pour ñu mën a am euh, dund boo xamante ne si dund bu yemb la ci société plus particulièrement ci sunu dëkk di Sénégal. c'est important dans cette quatorzième législature ñu gis ni que. Mm. yow yaay député bi gën a nekk xale bi gën a jeune. Mm. Euh, loolu lan la lay def. waaw loolu euh, yàlla moo ko dogal peut mm-hmm. mais dafa am loo xamante ne si da koy montrer. te mooy li muy montrer lenn la mooy que ne la jeunesse à sa place dans l'espace politique. peut-être à travers Soxna à travers yeneen jeunes yi nga xamante ne si ñu ngi nekk fii assemblée nationale nit ñi dinañ gën a comprendre xam ne jeunes yi am na loo xamante ne si mu ngi seen bopp yi. Mm-hmm. am nañ une partition boo xamante ne si wax nañ ko mën a jouer ci seen société. te nag wax dëgg neex yàlla jeunes yi duñ ay extraterrestres. jeunes yi ay sénégalais lañ ci lañ juddoo yaroo fi màggee fi. di dund ci société bi xam li nga xamante ne si moom moo nekk seen pays elles ont ils ont envie je dirais de mm-hmm. manière générale mm-hmm. en particulier les jeunes femmes elles ont envie de voir un meilleur Sénégal bi nga xamante ne si moom la ñuy dund alors êtes-vous mariée avez-vous des enfants non pas encore je suis pas encore mariée j'ai pas encore d'enfants mais ñu ñaan rek peut-être ça va ça ça va venir très prochainement. alors man loolu xaw ma ko woon xam naa ne téléspectateur yu bëri xamuñu ko woon mais c'est pas facile. Mm. Euh, tâche yu bees yi nga xamante ni am nga ko ak yenn responsabilité yi nga xamante ni am nga ko mm. naka nga koy dundee. waa tâche yeeg responsabilité bi ñun man par exemple yàlla dafa dogal ne politique daf ma yàgg a neex. Mm. dimbale say mbokk. dimbale say say say dëkkandoo dimbale ñi nga xamante ne si ñooñu nga nekk ci société bi dafa doon loo xamante ne a toujours été mon combat depuis le bas âge mm-hmm. avant may am responsabilité yi nga xamante ne si moom la am en tant que député plus particulièrement en tant que Benjamin de l'Assemblée dama nekkoon dans des associations de jeunes di défendre li nga xamante ne si moom mooy cause ju jeune exemple bu ma la ciy jox dama bokk ci benn mm, pro kii boo xamante ne si association boo xamante ne si ñu ngi koy wax FIPA muy regrouper toute la jeunesse politique sénégalaise. Mm-hmm. d' ailleurs je suis la vice coordonnatrice de ce réseau. ñu retrouver un autour d' réseau di wax ci participation jeune. avant élection yi di ñëw. avant local di ñëw avant euh, élection euh, législative yi di ñëw. kon continuité rek lay doon ci ñun parce que combat la yoo xamante ne si ay combat de société la ñu ciy jouer suñu rôle. en tant que jeune en tant que femme jeune ñu am responsabilité boo xamante ne si war nañ ko ci mën a jouer te mooy ñu ñu def li ñu war a def euh, responsabilité yi daal peut-être responsabilité yi yokk na mais changé wu dara ci suñu quotidien mm-hmm. parce que tamit dañu nekk ndaw nekk ak ay ndaw Sénégal don pays boo xamante ne c'est majoritairement jeune suñu ay morom di retrouver wu di retrouver wu ci ñun kon amuñ droit changé amuñ droit indi leneen lenn la ñuy def moo ne mooy dañuy man boog personnellement. Mhm. je reste la soxna bu nit ñi xamoon avant ngaa nekk conseillère municipale. ak mhm. avant ngaa nekk li nga xamante ne si moom mooy député à l' assemblée nationale parce que. tout passe après. Oui. Mais ce qui va rester, c'est l'être, c'est Sokhna tant que jeune, Sokhna en tant que jeune sénégalaise, ce mhm. qu'elle est en train de faire et ce qu'elle va faire pour le Sénégal. c'est important alors euh, dugg nga ci politique depuis 2017. Mhm. su ma wala bien avant. du mhm. euh, ñàkk ne xam nga jigéen ñi lu ñuy dund ci li nga xamante ni mooy société bi parce que je pense que. Mhm. Euh, yéen ñi nekk ci politique bi yéen a gën a jege li nga xamante ni moo di askan wi. est-ce que aujourd'hui la femme sénégalaise ak ak yelleef bi mu war a am ci biir société bi. ndax gis nga ne am na ko wala dafa des. non àq bi ak yelleef bi dafa des mais nag bu ñu defee recul tuuti. gis li nga xamante ne si moom moo doon am au cours de de de de dernier de ces dernières années ak fi nga xamante ne si foofu lañ toll ci responsabiliser jigéen ci engagement jigéen da ngay gis ne am na évolution parce que bu ñu fàttalikoo newut ne dañoo xëy xëy rek jigéen ñi yegg si fi ñu yegg si tey. dëgg la quand on prend l' exemple du Sénégal xëy xëy rek ñëw ci parité c' est parce que il y a eu des combats. Mm-hmm. qui ont été menés par des femmes des femmes très responsables des femmes sociales. Mm-hmm. quand il était temps ñu xam ne jigéen am na loo xamante ne si responsabilité la dans la société te da ko war a jouer femme yooyu ñun ñëpp xam nañ leen gis nañ taxawaay bi nga xamante ne si def nañ ko dans la mm-hmm. société sénégalaise def nañ ko ci li nga xamante ne si moom mooy engagement jigéen ci biir politique bu ñu demee nag ba génération yooyu yëpp romb ñu mm-hmm. dem ba ñëw vers les années 2010 ñu ñëw avec la loi sur la parité loolu Eh, euh, jéego la boo xamante ne si jéego bu am solo la boo xam ne def nañ ko en matière de de de de de responsabilité. Mm-hmm. des des des des moo tax am na loo xamante ne si des na parce que parité bi bu ñu waxantee dëgg rek ba léegi effectivité bi am na fu muy fu muy desee accompagnement bi nga xamante ne si moom moo war aussi bu ñu war a defal les am na foo xamante ne si desi na fa. Mm-hmm. mais li ngay jàpp mooy jusqu'à présent jigéen ñi en tant que couche. boo xamante ne si couche bu essentielle la ci société. Mm-hmm. li nga xamante ne si moom mooy seen gëdd carrément ba léegi dafa am loo xam ne dafa des te nag gis nañ ñu ngi ciy bay suñuy waar jigéen ñaa ngi def lu ñuy man pour wane ne ñoom kat elles sont capables. de de de de de de jouer ce parce que avant d' être femme politique femmes yi ay ay femmes sociales lañ. jigéen moom mooy société. Mm-hmm. li benn borom xam-xam doon wax. ne na la femme mooy mu Moustapha si di sama président de parti ne la femme est le baromètre de la société société bu ñu koy natt tey jii ci jigéen rek lañ ko mën a jàppee. comme ñun ñoo majoritaire ci société sénégalaise di di dem ci engagement di dem di jàppale su ñi nga xamante ni si ñoom ñooy suñu ay moromu jigéen kon jaadu na li nga xamante ni si moom mooy responsabilité bi ñu war a jox ci politique bi. Mm-hmm. ñu gën ñu koo jox delloo ñu li nga xamante ni si moom mooy suñu gëdd. c'est important alors nga nekk député nekk biir assemblée ce qui se passe à l'assemblée ñun dañ koy seetaan mhm. téléspectateurs yi dañ koy daal di gis mais naka nga gisee mhm. la prestation des femmes qui sont à l'assemblée la prestation des femmes à l'assemblée prestation la boo xamante ne si bu baax la mhm. parce que mais nag dans toute chose il a des des des des choses à parfaire parce que boo xoolee nit ñi am na noo xam ne noonu lañ doon gisee jigéen di wax ne jigéen yi buñ ñëwee ci assemblée yi dañuy ñëw di xulloo di xeex di di nekk di wax wax yoo xamante ne si euh, am na loo xam ne méngoowu ko ak li nga xam ne loolu la ñuy représentation bi ñu bi ñuy def mm-hmm. mais da ngay gis ne liñ doon wax jigéen sax tey jii ni góor yi au ñoom ci seen bopp am na loo xamante ne si ñoom ñoo koy def mm-hmm. te mooy dinañ def dinañ agiré noo xamante ne si dëppoowul ak ni nga xam ne noonu la institution war a doxee noonu la neneen ak neneen war a moo tax li ngay jàpp mooy jigéen ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk à l' assemblée nationale man mm-hmm. boog ñi nga xam ne ñooñu laa fekkee mm-hmm. ak jigéen ñi nga xamante ne si dañu nekk dans les conseils municipaux di jouer seen rôle man gëm naa ne ñi ngi def une participation boo xamante ne si très efficace une participation boo xamante ne si bu am sens la ci ay responsabilité yoo xamante ne si dinañ leen ko mais n'empêche day am ñoo xamante ne si Euh, ay ay ay ay choses à parfaire la mooy li ma la wax sànq mais am na ay jéego yu bari yoo xamante ne si parce que jigéen ñi dañu jàng léegi. Mm-hmm. jigéen ñi dañu dañu am ñu ñu leen yar. ñuy def dignement li nga xamante ne si loolu lañ leen sal comme dans l'ordre des choses ni nga gisee ne am na ñoo xam ne ñi ngi def li leen war am na ñoo xam ne aussi ñi ngi def leneen loo xamante ne si ça ne moom mooy seen mission mais n'empêche que majoritairement jigéen ñi ñi ngi jouer seen rôle bi nga xamante ne si moom lañ leen wax ci société bi mais plus particulièrement à l'Assemblée parce que ay intervention yu pertinente la ñuy def ay ay euh, intervention yoo xam ne ça prend en compte euh, li nga xam ne moom mooy seen i préoccupation euh, communauté te yaakaar naa ci loolu lañ leen di xaare mhm. te mooy essayer nañ de transposer li nga xam ne moom la ñuy dund ci société bi jéem koo indi fi nga xamante ne si foofu lañu nekk alors bés bu nga xamante ni man maa ko moom yaa ko moom mm. képp kuy jigéen aussi eh, ñu ngi la koy déjee mu 8 mars mm. boo amoon tey benn message wala benn vœu bu nga xamante ni bëggoon nga ko bàyyi lan lay doon waaw message 8 mars bi mooy ñu sargal jigéen ñi parce que li ñuy wax te man loolu laa gëm mooy que ne jigéen moom moom moom weer yëpp jigéen moom moom moom jour yëpp parce que la femme moom moo nekk quotidiennement ki nga xamante ne si moom mooy moteuru société ñoo nekk ci famille yi parce que fii ku fi doonul yaay doon nga sœur ku fi doonul sœur doon nga doon nga doon nga nuñ ko xeeti jabaru kenn kon côté quotidiennement femme yi dafa am loo xamante ni si dañ ko représenté ci société moo tax ñu leen di wax ne bés yëpp ñun ñooy boroom li nga xamante ne war en tant que des femmes ñu koy def kenn ku nekk ci niveau bi nga xamante ni si da nga ko nekk muy ku nekk ci marché ba muy ku nekk ci école ba muy ku nekk ci entreprise ba muy ku mhm. nekk assemblée nationale ñu gën ci góorgóorlu parce que kenn ku nekk yaa ngi joué sa rôle ci société bi nga xamante ni si moom nga nekk di wax nag message bi lenn la mooy nañu gën a jëlaat suñu ay responsabilité en tant que femme essayons de montrer aux hommes essayons de montrer à la face du monde que nous avons des compétences nous avons des des des, Nous avons de l'expertise que nous pouvons mettre à la disposition de nos pays, à la disposition de nos concitoyens pour que le Sénégal que nous aimons tous am foo xamante ne si dina fa jëm di waxaat tamit ba léegi ne nañu gën a jàppale jigéen ñi. Mm-hmm. ci nuñ koy waxee ti am na ay projets yu bëri yoo xamante ay projet jigéen la jigéen ñi ñu ngi ciy dox di ci wax. Euh, affaire euh, allaitement yi congé pour allaitement yi wax nañ ko fi nañu gën a jàppale jigéen ñi. entrepreneuriat bi nañ leen ci gën a jàppale li nga xamante ne si dañu nekk ay femme di figurer wu ci milieu politique bi nañ leen dooleel jox leen li nga xamante ne si loolu lañ moom parce que da ngay gis sax bu ñuy def ay sondage mm-hmm. les wala ñuy def ay ay pronostic dañuy jël femme yi di leen minimiser di jël ay hommes rek di leen mettre à la à la une homme yi la ñuy wax homme la ñuy wax et pourtant du question de féministe du fait question de dara. Ah c'est parce que il y a vous, des ouais. femmes mm-hmm. qui sont capables de faire. rôle yi nga xamante ne c'est mieux que les hommes. moo tax nañ leen jox confiance. Mm-hmm. nañ leen responsabilité yéen ñi nga xam ne yen a yor média yi ay jigéen ngeen. Mm-hmm. Euh, yàlla may na leen ngeen def jàng tey jii rek yéen rek ay exemple ngeen parce que wane ngeen ne lu góor mën ci milieu journalisme yéen jigéen ñi mën ngeen ko te yéen a ngi ciy joué li nga seen moo tax ngeen gën a def promotion des femmes gën leen jàppale ci li nga xamante ne si loolu mooy yembal société ñi ciy góorgóorlu ñu gën leen jàppale def une solidarité boo xamante ne si solidarité féminine lay doon jàppalante suñu biir lu ñu war a def yépp ñu def ko pour une meilleure prise en sage des préoccupations de la société merci beaucoup honorable en tout cas moi je suis trop fière mm-hmm. euh, gis jigéen euh, nekk biir assemblée mm-hmm. et je me dis pourquoi pas ñu xëy un bon jour mm-hmm. ñu am une présidente de la république parce que nii lay commencé compté boo gis ci benn la et je pense que li nga yàgg liggéey loolu moo jur li tey yàgg nga nekk ci politique bi di xeex nga nekk jigéen bokk ko ak ay góor. Mm. di jiite jeunes yi. Mm. tey je pense que récompense boobu nga am. Mm. ñu ngi lay xaar ci yeneen instance bi gën a kawe assemblée pourquoi pas. Euh, pourquoi pas en deux mille trente cinq qui sait. ñu gis Soxna Ba. Euh, nekk nekk candidate à l' élection présidentielle pourquoi pas en tout cas moi je pense que c' est possible. te xam naa ne yow aussi jàpp nga ni. c' est possible ñu ngi lay remercier di la sargal bu baax a baax ci bésu tey merci beaucoup. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen